mbokk yi gis na ni combat bi jeexee diggante Alioune Diop bu Lansar ak Ndiakhoum bu Cheikh Mbaba alors coach gis nañu combat bi yàgg ñu dem bàyyante ñëwaat bàyyante ñëwaat bi ma laajtee léegi ki daan Ndiakhoum nee na ma sa waay entraîné wul. Alioune Diop boo gisee ni ñu def nii muy jéem a yàq bi boo gisee nga xam ne entraîné wut combat ko entraîné du ko yàq. parce que suñ falu man bari naa ba ma bare te jeexuma mënuma jeex. parce que damaa liggéey mu fi nag nag na ay affaire yi paak yooyu dafa xamul auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim euh, ñoo ngi leen di nuyu di nuyu waa Equivox di nuyu aussi euh, axlu làmb comme d'habitude ñaaxum euh, wane na ne préparé na combat bi jël na ko au sérieux mm. Alioune Diop nag am na tuut lu ma desee gis si moom ndax comme li ma la waxoon rek nee naa la Cobra da ko daan mu toog deux ans mm. Tigre bi samoon daanaat ko 2017 ak 2018 2019 tey mu toog deux ans mm. manqué na le peelu làmb lansaar gi ko war a ëmb gisu ko eh, gi ko war a ëmb indi ko gisuma ci tey nees gisuma tey Mama Lamine mais ñoom Tidiane Faye laa gis ñoom Kouwén sax ñëw nañ mais ëmb gi ñu war a ëmb bu dee combat yu mag yi am ñoom te bii tamit nekk combat mag Alioune Alioune Alioune Diop gëj a bëre dëgg-dëgg war nañ koo taxaw taxaw boo xam ne manqué na préparation. ci li ma xam man ci en tant que préparateur. manqué na aussi digg géew. Hmm. ndax gëj a bëre gi mu bëre boo xoolee. diw daal la nga toog deux ans diw daal la nga toog deux ans da ngay manqué repère. da ngay manqué repère. Mhm. alors lan nga lan la ñuy mën a wax tey ci njaaxum lu mu bëree moom it euh, mu jógee ci euh, lu xaw a doy waar aussi mais mu bëri bëri gu doy waar gauche droite gauche droite sonnul parce que li mu sànni ci gauche droite pour man dana vidéo mm. mais au contraire nee na ma sa waay moo vidéo njaaxum préparé na combat bi au sérieux xamal na ki mu doon bëree lourd la. Mm. donc benn benn yooyu faaw mu am. mais nag njaaxum combat bi moom ak ni combat bi gën a yàgg. Mm. muy gën a métti ci Alioune Diop ndax Alioune Diop préparation dëgg-dëgg des na. des na des na ñu lay gërëm coach euh, Mame Less alors mbokk yi comme ni ngeen ko gisee mooy grand combat bi nga xamante ne tey Sam moom la tuddee euh, handicapé yi ñu leen di jox dig daje très bientôt ci beneen euh, làmb wala ci beneen numéro Vox Arena peace.